waaw man Sadio correct euh, je pense que effectivement j'ai la chance. mais j'ai la chance de l'avoir au téléphone ça fait pas longtemps. loolu mu dugal ay xam nga ne ko ci j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone il y a pas longtemps mais comme moom man li ma ci profité pour wax ko nee ko sa carrière bul ko bàyyi ci loxo sénégalais on est dans l'émotion ñun sénégalais et lui c'est c'est-à-dire carrière am moo koy gérer boppam gis nga c'est pas évident que mu jógee mu dem Chelsea première saison c'est pas évident aujourd'hui def na une saison bu compliquée parce que ak blessure tout mais je pense que aujourd'hui Sadio mhm. bu ñu ko joxaatee possibilité mu toogaat il peut encore jël confiance jël carrément euh, et puis apporter ko aussi sunu soutien ñun daal sénégalais yi. Mhm. nañ xam ne nañ ko nañ carrière am nekk ci tey joué wul génnal fii comme si. beaucoup merci président